woy Aba waaw wóolu nga sa sëriñ waaw yow xoolal li ma lo li ñu waxante woon ah instant bii nii xoolal sangoo nga affaire yi ah ñun nga def li mu wax noonu waaye man maa la ko waatal xam nga benn sareet nga yor mm. juga. soo fi jógee da ngay am mille sareet ay ni sareet yi bu ñëwee oto yi ñoo mm. siy topp te gis nga oto yi buñ eh? No. toppee non nag sangool nee dama lay sang juróom-ñaari sang. Mhm. dóor la juróom-ñaari dóor. Mhm. ñu dem ñu def li mu waxoon léegi bu ñu ko defee ba pare après ma ñëw si moom moo am na ma jox ma jox la ko xool xaalis bi xool buy ñëw da ngay làmb sa poos génn xaalis. Hmm. nii xaalis. loolu xoolal. ah Abba. Ah, kii ku fi tekki moo la sang ki ma lay wax nii. yàlla laa la wax ma juddoo ba léegi amay gis oto rek un suma kaa am. am nga am ñaari dóor ma sangu rek am. xoto ah. ak xaalis. booy sangu du boo moytu boo lambee sa poche permis nga ciy fekk am na. mais nag xoolal nañ eh? Eh? que nee na. sang bi. Mhm. amul wax. Eh? amul wax ma sottee benn sotti. waaw ah. damay dóor benn mhm. wax ndax boo waxee rek. day teg gàllaaj yoo xamante ne nii bëgguñu wax. wax kon yaa nga sangoo gàllaaj. ma wax comprendre yoo xam ni. xoolal man maa la ko waa ji ma lay wax ni mhm. ku fi tekki moo la sang fii Sénégal. déet waay. ma la président yi sax su ma juumul ni dañ fay sangoo léegi dañuy sumeeku ñu ko wax. kay looloo tax néegu Marème Faye Sall dina bari bidon de. <laughs> sumeeku. am loolu raawul. tey ngay bëri xaalis. sangu rek a ngay am xaalis. waaw égal. na leen bu dee xool la kay amay sangu. xoolal neex kii woon mu doon fi. ci monsieur eh, eh, ba ay noonu rek. ah waaw wax nga dëgg ah. nag. Hmm. foog dindi si benn seulement wala bii. sono bii day deñ sax xaaral xaaral ma dindi bii ay yow sa tàngu rek am ay xéewal yu bari noonu bon kay tekki nga loolu kay garaawul tekki nga ah, waaw ay kay tekki nga de man maa la Abass war na yàlla bu yàlla defee ma sangu ba am ni ay kii yow kay waaw parce que yàlla ku ma la romb yóbbaale ñaari kaat kaat kaa ma hmm? benn naam benn benn naam amul wax de trois trois trois ñett amul wax fii kay boo jugee moom mooy tekki nga nekk milliardaire ah papa ah oh. hmm? waaye waaye yàq nga lii waaye yow. allah waaye yàq nga looy wax. ak yàlla laa lay wax dóor yi ñaata dóor la wax. xoolal yow waroo lox wax set la woon tekki woon nga ba pare ma dóor la ñaata la ngay wax quatre moo si desoon yàq nga lépp foog ñu commencé à zéro waaw. ah xaw a sedd kay. waay waay wul rek yow lii la mu jeex nga nekk milliardaire am jabar yu bari. am sa xaalis waaw. bu dawal kay dawal oto ma waxaat kay. waaw bul waxaat waay. day la fooy. waaw waaw boo ma ah, xoolal température. météo ba xam. ñaata sedd bi daa am doole de. waaw si euh, te te te xamul lan la. yow concentré wul rek mel ni muuma yow. Hmm. d'accord mën nañ demaale ah. est-ce que diggante yàlla amay am loolu yëpp. da ngay am xaalis. daraawul sàngal dootul ñu wax. oh. deux amul ragal de milliardaire doon nga xaw pare xaar kii boo am seex trois ñett des na rek amul wax de quatre rek moo si des nga tekki ñeent rek nga tekki ñeent ay xaalisam neex de quatre quatre ah. 4 5 ñaar moo si des nga tekki ñaar rek nga tekki ñaar rek nga tekki xaalis a neex amal lay fàttali yaa ngi ci siis de dégg nga benn rek moo la dese dóoral dóor waaw yàq nga ko waa yow allah yàq waaw yàq nga ko waa yow dóor xool benn si desoon benn ñu ngi woon six benn si des sept mu jeex nga nekk milliardaire. ah xawal a Abbas. man laaj. waaw. sëriñ bi àll dëkk. waaye mooy fi ñu àndoo. nañu àggali yow. si se eh, eh, taxawal rek ama lay la benn si des. waaw ban ndànk fin àndoon maag yow foofu noonu. waaw. si akket la sa bi dëkk. néegu ñax boobu ñu duggoon mooy néegam sax waaye dañu eh, àggali waaye. taxawal ma ay yaakaar ni daal lu dul foofu. foofu la dëkk. yow foofu amul étage amul tabax de. foofu mooy këram xoolal nañ sàmm. foofu kër sa foofu la dëkk. ma defe ni daan luwee foofu. foofu la dëkk. yow xam nga benn affaire. waaw. sa sëriñ bi ay nday duul. defal ndànk rek. yow bu fekkee moo la wax oo ma sangee amay am xaalis moom ndayam ak baayam du ñu am xaalis. xoolal ma sangatee a sanga sa nday de dégg i ma la. doo sangu. ma la alors. Itu. Hanya tu yang lama aja. Apa? Waaw. Man de wax dëgg yàlla li nga ma wax xam nga lu ñii léegi danoo yàq seen doxali jigéen da daan toog ci foo xooju ndeyam waa ju baax waxambaane moo xamante ni mu am jom ñëw fekk ko fa def ci moom ay xéewal yóbbu ko ca sa këram mu sëyal ko mhm. ah waaye lii nu jógtee ay na waar waaw bu dee dëgg man de loolu laa xamoon waaye léegi jamono ji père yàqu na yàqu boo xamante ni mhm. léegi li ci kër yi moom la ñuy génne ci mbedd mi. wallaahi te sutura daal amatul. tati dinaa la xamal baa yii nga xamante ni nu ngi koy jël di ko doxee ci mbedd mi tubaab bi ba mu koy defar pour fanaan la woon. wala jiita. ah, ah. waaw waaw. waaye léegi dañu koy exposé ci mbedd mi. Ah, doo ci wax dara boo waxee ñu naan as de la pauvreté la toll. waaw ah, loolu dafa doy doy na waar. doy na waar xoolal kii nu wane ci journal bi mu ne day jaay boppam waaye. yow da ngaa moom sa bopp bay bay jaay sa bopp. te amoon loo ko joxee du dul ñetti téeméer a tax nu def ko ni ah dama ni jigéen naka lay jaayee boppam ah dama ni loolu moo gën a ndaw si li nga xamante ni moom la ñuy def looloo si gën a ndaw mooy li ma la wax rek dëkk bi daal li fi nekk ku si nekk da ñaan yàlla musal la si musal si sag njaboot waaye léegi kenn mënul wax lépp daal nag jigéen léegi dafa perte valeur parce que bu njëkk ba jigéen bu nee jigéen bu njëkk ba jëggan mhm. waaye léegi boobu ba pour nga am ko sax da ngay tendre sens léegi da ngay takk jabar rek yow yàllaa lay dimbali mhm. bu njëkk ba yow ku jigéen gi da toog seen kër mhm. ku la soxla fekk la fa waaw waaw waaye léegi ku góor gi yaay toog sa kër ku la soxla fekk la fa kon kay doy na war te dan tanu lay indil warugar jox la ñeent fukki junni nga ni da ngaa xeeb warugar waaw génn ci biti ndaje xaj bu bon mu yëkkati benn sandis ak ñaar téeméer jox la doy na waar lépp daal moom daal mm, li ma ciy wax mooy kenn ku si nekk na nga jël ci say responsabilité boobu. Mm. dégg nga ndax jabaru jàmbur du jabar. dégg nga jabaru jàmbur ba fa. waaw loolu laata xara buusi naa pour laal bul jege yow nga ñëw léegi ma la laal rek waaye da ngay jege ba sóobu ca biir. waaw loolu ah, ñaaw na ñaaw na Ismaïla Sarr ninu ko def ñaaw na. Ah, jabaru jàmbur loo cay wut ba di ca sàkku. ban ñu di dara ca fekk. kooku moom xam nga loolu booba tey ñu ngi koy ngawti waaye man moom man su ma fekkoon waaye dama koy rey. nit kii nga xool xam ne xool na jabaram ba bëgg ko takk ka ci farata ak sunna indi ko këram dem uti lu mu dundalee njabootam yow nga ginnaaw ko ñëw nekk ak jabaram aw loolu loolu dafa ñaaw dinaa la xamal ña xam nga danu ma ko nettali waaye bu ma ko fekke woon kàmb gi la noonu muy dunde laay gas kàmbu dugal ko ci biir muy dund de nga ndax jabaru jàmbur yoonu kenn nekku ca ka ko takk moo ko moom dama ne jabaru ah. jàmbur ba fa yow nak sama dom nga ma bëgg nga gor da nga nek ci yoon di dem man de sa baay waxuma la jabaru jambur de rakku jambur sax sama yoon nekku ci lool moy dëgg damaa de lool moy deug aka ma maandu ndax man mi di sa bay aba may jël soxna amna naa at ak juróom ñet bima ko yalla doxé ba mën na sañ na wat ni musuma moy xooluma beneen bët sama bët bii di ko teg ci jabaru jàmbur wala leneen ak leneen maa ngi yem fi ma war a yem. yow nag ndaw nga dangaa tool sa yoon. moytul ma xale jigéen ñi. boo demee ba bëgg soxna xoolal gis nga jabar dañ koy takkee ci ñett. dañ koy takk ci jikko ju baax. takk ko ci askan wu baax. wallaay takk ko ci taar. jabaru jàmbur sama yoon nekk ci te duma ci dugg. lu xew ki sëñ bi pettiti hmm? man gaañ na ma sax pettiti waaw pettiti paa bi waaw waaw kii waxam mu génn sama néeg bi sinon dama lay wan këriñ këriñ waaw iya. kon ma génn si doo def ndànk iya, kii am na lu muy wax li muy expliqué moo leeru taxawal bu nga déglu doo xam ni wax waaw paa bi waaw def na télé paa bi fii eh, eh, eh, ah, yow sooy déglu doo déglu waxu nit. xool dama si ngay déglu waxu nit. waaw kon man ma génn si. ah ma génn si léegi damay dem de. déedéet da ngay déglu waxu nit de da bañ a déglu waxu muuma. ah muuma du nit. su muuma nekkee nit. su muuma nekkoon nit du nit ñi nag xam. muuma du nit muumay def yëpp dop yi. muuma kii sa kër lu xew. papa ji nii. waaw waaw. yéen tamit tey ab sa bëccëg at. ah sa jabar yow yow sa jabar. taati waaw paa bi. moo pitin mu appétit waaw mo apatata sa jabar sa apatata apatata mo petit etat dello mo petit apatata Allahu akbar astaghfirullah ay ay ay ay ay yooyu noonu bu ma ko def yow am nga ni sax man bu ma def yooyu noonu man moom man moom man moom an bu muuma bi bu olof yow waaye dimbali ñu nga am bu muuma bu olof hmm? bu muuma bu bu olof laa yemale man damaay maandu bu muuma beeg bu olof bi bëgguma si benn daɗi ɗanmatul ɗenni yow dama lay wan këriñ da ngay sos da ngay wan këriñ wan nga këriñ boo ko wan la fii ba nga nooy yow mënoo dem ma dem ko eh Abbas def ede eh, da ngay wan këriñ kon baa eh, demee doo def naa nga ma arrange problème bi yow yaa ngi def lu ñuy weñ ñuy wax pare bu nga da ngay wanaat ay këriñ kii këriñ ak matta ci yam loo ko fi wan da lay rey yaa ngi dégg da ngay déglu yow yaa yow xam yow yaa ko def yow yow li ma fi wax léegi lépp lépp lépp sànq nii nekk yow kooku sax yaa ko gën a kii nu mu la di hum man maa la ko ñaan man. man maa la ko ñaan. dimbali ma rek ngir yalla ngir yalla man maa la ko ñaan. xoolal dinaa ñëw sa kër. sa kër. waaw. eh booy booy dañuy tapati non non di la mom problème bi man di la ñew sa kër ba régler ko sa buntu ga loolu fa ñaan. di di fal fal non man li jógee ci man sax. dootul ñëw ko am ñuy sax de ko ma sax. yow yow comprendre nu mu demee. yow amoo jom waaye nag li mu fi wax yëpp si yow la dagan jabar ji xam nga daal déggoon may way ay ween fii la war a ne xam nga ñoom du ñu dégg waaye soo defee ay geste dinañ xam mu topp ma fan yee yëpp pour ma ñëw wan ko ay ween fan la wara ma ko koy wanee rek jëkkër ji daw ñëw daw génn du ñëw fii toog. yow da nga xam yow ay ween fan la war a nekk bay wanaata ay ween fu muy nekk. man kay fi tol ni ay bobet sax la gëna xam fu mu ne. wa baax nga yow xaar bu fofu rek. wa ko ñu laay o ñoo ñu suul. Eh, Abbas ba bàyyi mu damay suul de Abbas eh eh xaaral taxaw bul dem de jàpp ci rek ba sa fii ci kaw.